ak ak fi Cheikh Ibrahima nekkoon. waaw. Mhm. waaw kay xam nga moom. Mhm. li nit ñi war a xam. Mhm. mooy du nitu caaxaan. nit ñi dañoo war a xam ne. nitu qualité la. ci askan. ak ci xam-xam. ak ci jikko. ci ñu gënoon a yeewu ci àdduna la bokk. ndax ku gis Sëñ Tuubaa rek. fa la yeewu ku xam nu ñuy topp sëñ Tuubaa fa la yeewu ku xam boo wutee sëñ Tuubaa ba noppi noo koy téye fa la yeewu teyam maanaa ku yeewu la woon moo tax sax yàlla fayee ko ay nit ñu yeewu am na ku baax koo xam ne ci sëriñ bi la bokk mas na ma ne ku gën a yeewu ci yoonu murit ma ne ko sëñ bi loolu kat bu ma ko laaj mu ne ma sëñ Mourou Moustapha xam nga lu tax li ñu ne woon Cheikh Ibra dof la moo tax yàlla fayee ko ki gën a yeewu ci yoonu ndax yàlla saa buñ la xasee ngir moom rek booyee boo yëkkati sa loxo. xam ne dana la fayul bu ñëpp xam ko yàlla buñ la xasee ngir moom la. Hmm. te Cheikh Ibra dañ koo xas ngir yàlla. moo tax nag ma bëgg. ñu xam ne. maanaam ak alxu euh, lislaam jii ñuy wax. ak xolu lislaam dëgg dëgg xam nga loo gis dafa am jëmm am ruu. dama bëgg ñu wax lu leer ndax ñëpp ñuy déglu. Hmm. télévision la. loo gis dafa am jëmm am ruu. Hmm. jëmm ji nag li muy am am solo bu ruu gi génnee nuñ koy def robi rek dafa fexe bay ruuxu lislaam waaye may wax ni li dox suñu diggante buum gi takkee suñu diggante ak sëriñ bi takke suñu diggante ak njabootu sëriñ Tuubaa mooy buumu cofeel mu doon buum gu am solo ndax bokk na ci li gën ci xeeti jaamu yàlla bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yalla bëgg ngir yalla ak bañ ngir yalla bu bokk yalla yi gën a ndax dañu wax ni suñu borom dafa mësa wax yu yonte yàlla Moussa ne ko waaw ana loo mas defal Moussa loo ma mas defal mu ko ah, yàlla maa ngi julli de maa ngi woor maa ngi ne ko as-salatu laka nur julli gi julli ak leer la wii del siwaat ci yow asiyaamu lakka junnatun ni ko koor gi ngay koor ab pakk la bu lay fegal lépp lu waroon a jëm si ci yow lu dul noonu asadaxatu lakk burhaanu ni ko sarax bi ngay saraxa yi aw lay la ñeel la daf lay layal ëllëg kon loo ma si defal ndax lépp des waat na ci yow mu ne ko yàlla kon lu may def mu ne ko ndax mas bëgg nit ngir man mas bëgg ngir sama jëm ndax mas ngaa bañ ngir sama jëm Moussa xamee ci ne kon ndekete kon li gën a rëy ci lu suñu borom soxla ci jaamam mooy mu bëgg ngir jëmmam bañ yit ngir jëmam kon li dox suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa nu xam lim doon muy bëgg ngir yàlla